un an li fi nekk ci problème bëri na. ñu engagé ko dañuy ñaan rek li ñuy def ñu def ko ak pédagogie di communiquer bu baax dessus di wane résultat yi fu ñu si toll pour nit ñi mën a apprécier bañ na defuñu fi dara. Mm. parce que liggéey bi dina yàgg dina gudd. waaw du xëy rek sotti. déedéet. gouvernement bi ñuy xaar nee nañu entre mercredi euh, et même mardi demain na ñu am un premier ministre bu ko defee xëy na avant la fin de la semaine en tout cas dinañu am gouvernement bi semaine prochaine buñ ci duggoo day fekk ne commencé nañu mettre en œuvre le le projet euh, gouvernement boobu mooy doxal projet bi naka la war a mel naka la ñu ko war a tëggee ñan ñoo ci war a bokk yan ñoo war a nekk critère wu ñu ñi ñuy composé boobu équipe gouvernementale encore une fois monsieur Alpha Thiam wax na lu solo mm. mooy le compétence loolu mooy critère bi gën a déterminant. Mm-hmm. ginnaaw critère compétence tamit am na la probité maanaam li nga xamante ni mooy intégrité wu nit ki ou bien en tout cas euh, côté moral. Mm-hmm. vraiment. Euh, enquête de moralité mm, waaw ku ñu mës a dégg ci yenn yi parce que la rupture loolu ñu ngi koy xaar pas ku mës a ku mës a exercer par contre dama doon leeral ma ne c'est pas forcément. képp ku mës a rek da nga a mhm. luubal. ça aussi il faut faire la part des ah, choses. bien sûr donc ñi nga xamante ni quand ay rapport épinglé nañ leen leer na leeragul. Mm. je pense que ñooñu c'est des gens yoo xamante ni pour le moment ils sont pas ils sont pas aptes. n'est-ce pas pour les dugg ci <laughs> gouvernement bi. ñi nga xamante ni nii euh, amuñu compétence. c'est vrai on va chercher on a toujours cherché au Sénégal à caser une certaine clientèle politique. loolu aussi faudrait ba Bassirou Diomaye fay bii def erreur boobu noonu. Mhm. ku nekk la nga mëne nañ la jox nga doxalee noonu. donc euh, en tout transparence aussi mhm. parce que wax na fi lu am solo mooy la transparence mhm. je me souviens Fatou amoon nañu fi benn invité benn mu ñuy nettali li nga xamante doon xew temps Abdoulaye Wade mais quinze je lui demandé lan moo tax communiqué wala mu ne peuple bi du comprendre ma ne ko c'est là où beaucoup d'hommes politiques font l'erreur mm le peuple sénégalais et mature. le peuple sénégalais est capable de comprendre le peuple sénégalais mën na comprendre tey benn ba Bassirou Diomaye Faye président bëgg mbir bëgg ko doxal peut-être mu am dem ba si biir mu am benn blocage donc c'est pas parce qu'il il a renoncé mais bu delluwaasee telluwaatee si peuple bi wax ak moom ne ko man de maa leen dig lii jéem naa ko te maa ngi si def li ma mën mais sooxee na ndax lii ak lii ak lii mais le peuple est capable de comprendre cela mais mu sooxee ba pare nga noppi. Mhm. bañ a communiquer le peuple pare dañu gëmloo ne ça marche. le peuple va tirer une <laughs> conclusion. mooy li nga leen waxoon defoo ko. Mhm, mhm. parce que la vérité est que tey am na peut-être diggé yi nga xamante ni am na yi nga xamante ni ça transcende même la durée du mandat. parce que tey je pense pas que projet bi dañ def benn projet boo xamante ni c'est sur cinq ans après on range. on range tout ñu dem ci leneen. c'est un projet bi nga xamante ni man gëm naa ne ça donc comme day dem au delà aussi tout ne peut pas être réalisé en cinq ans mm-hmm. le temps passe vite les urgences son multiples donc et diverses donc loolu day tax ne donc mënuñu yaakaar tout de suite tout de suite tout de suite que tout soit chamboulé mm-hmm. mais nag euh, il faut ñu continuer di euh, dundal yaakaar bi nga xamante ni peuple bi am na ko mm-hmm. mooy dès les premières heures action yi ñuy posé ñu gis ne dafa méngoo ak fi ñu bëgg a jëm mais bu dee action yi ñu posé dañu gis ne ni dafa nekk à porte foo ak li nga xamante ni fa la ñu bëgg a dem day indi day indi jafe-jafe day indi réticence day indi sax yaakaar gu tas si ñenn ñi donc gouvernement bi par rapport à la taille mm. bon moi je me dis faut pas trop aussi se faire de fixation il faut pas avoir un gouvernement mm. euh, euh, nu mu tudd bi nga xamante ni euh, voilà quoi bu yaatu la yaatu yaatu parce que aussi on n'a pas les ressources financières forcément mm. pour faire face mais mën nañ am un gouvernement raisonnable autour de vingt cinq trente ministres. jusqu'à trente cinq ministres moi je c'est raisonnable pour un pays comme le Sénégal mën nañ si liggéey mais mu doon li nga xamante ni vraiment l'action du gouvernement va se faire sentir. qu'on pas un gouvernement bi nga xam dafa déconnecté par rapport ak réalité peuple bi mooy un gouvernement capable. je ne sais pas à travers des notes à travers des communiqués. à travers des points de presse des conférences. de pouvoir mhm. rendre compte. jéemoon nañ ko fii à la fin du mandat du président Macky Sall après ils ont abandonné c'est parce qu'ils étaient mal à l'aise à un moment donné mm-hmm. parce que tamit jàkkaarloo ak nit ñi di wax ak ñoom su nekkee ni ñeme woo wax dëgg gi si les résultats sont pas wala nga leen di gëmloo contraire li am donc il faut <laughs> oser il faut oser mais man man rusuma ma jéem mënuma mm-hmm. ma jéem ma am jafe-jafe ma rusuma loolu damay ñëw ne la am naa jafe-jafe mais li may rus mooy ma ñëw di la jaay lu amul di la ne maa ngi doxal li nga xamante ni loolu ngeen ma dig loolu laa leen dikk fekk loolu amul. loolu ce serait mentir peuple. Mm-hmm. te peuple moom saa yoo ko naxee mën nga ko nax pendant un certain temps. Mm-hmm. mais mënoo ko nax tout le temps. tout le temps donc day am un moment dinañ ne doy na. Mm-hmm. ils vont appeler à une nouvelle rupture comme ni ñu wooyee rupture. et c'est un mot que le président Bassirou Diomaye a prononcé. bi mu njëkkee jël kàddu. donc rupture humilité transparence donc ñetti mots yooyu noonu dafa am signification bu rëy pour sénégalais. bien sûr espérons vraiment dina ko euh, jëfe et ñi mu àndal. tamit dinañ ko jëfee. Mm-hmm. mais au delà tamit bu ñu jëlee constituer gouvernement bi dafa am lu ñuy xaar mooy ñu auditer wax sénégalais yi lan lañu ñu gis mm-hmm. d'abord. l'état des lieux parce que loolu mooy loolu loolu même. c'est dans leur intérêt. Bien gouvernement bi di toog si intérêt am la. pour bañ a endosser erreur ñeneen ñi. absolument parce que. politiciens yu bëri <laughs> mën nañ toog fii suba ne non lii ñun defuñu ko woon yéen ko mm-hmm. def etc mm-hmm. mais en tout cas l' état des lieux yépp xam ne ni ñoom bi ñu jot nguur gi ci ñii mm-hmm. lañ ko jotee si anam bii lañ ko jotee te dinañu doxal pour changer loolu donc loolu moom Fatou day doon li nga xamante ni ñu ngi koy xaar l'homme qu'il faut à la place qu'il faut on va s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de transparence dans l'action gouvernementale bi di génn di communiquer de façon très très sereine nga xamante peuple bi dina xam tey fan la gouvernement parce que loolu aussi mooy tax sax euh, décision yenn yi nga xamante parce que y a des décisions yi nga xamante ni forcément dina indi ay couac sur le plan international tey souveraineté boo ko woo boo ko wootee en mm-hmm. tant que président mooy tu es prêt à te mettre à dos certains certains pays qu'on considère des pays amis mais qui ne sont pas des amis parce que les États <laughs> n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts c'est donc am na pays yoo xamante ni dinañ gis ni kii et puis déjà man j'ai vu ça au niveau des médias français. Mm-hmm. ñuy dénigrer le Pastef. ak Bassirou Diomaye di ne c'est un parti populiste. donc ñu ngi ñuy commencé ñu ngi koy commencé étiqueter. Mm-hmm. li nga xamante ni du dëgg ñun gëmuñu loolu ñun la ñu gëm ne mooy il appel à la souveraineté. et ñun loolu la ñu gëm. Mm-hmm. ñun suñu génération et mois je dis même les génération antérieures. Ouais. souveraineté dafa doon li nga xamante ne léegi motif la ko mm. ñun dañ ko gëm te dañu jàpp ne souveraineté dafa war a am te jot na muy économique <laughs> muy euh, souveraineté euh, à tout point de vue même mën mm. monétaire et tout. Ah. ñu am ko léegi nag loolu la ñuy xaar mais bu bëggee tamit moom ay action am peuple bi di ànd ak moom il faut mu communiquer. su communiquer tey que la France ne soit pas contente d'une décision que notre président a prise. Mm. <laughs> mais ça nous met au pôle nord ñun ak décision bi mu jël lan la Sénégal di am si loolu et on sera prêt à défendre cela nest pas qu'il vente ou soutien dont mais bu nekkee ni ñoom bu nekkee communiqué wul amul assise bu solide au niveau mm-hmm. au niveau national soutien interne donc bu demee sur le plan international bu ko buñ bu ñu ko jéemee xeex peut-être dina yomba daaneel mais bu ñu ne ah quand bien même Diomaye président li muy teg France àndu si yeneen mm-hmm. état yi ànduñu si mais ñun ah il a l'adhésion de son peuple à un moment donné ils ne pourront rien faire ils pourront pas faire grand chose parce que moom la wóolu te moom il ne le rend bien mhm. à travers les actes qu'il pose on s'y reconnaît donc nous on n'a pas de problème avec lui donc même suñ ko ŋàññee ñun danañ ko war a dañ ko mais moo tax aussi je lance un message à certains Sénégalais ñi nga xamante ni man xawma seen dose d'intelligence la toll quoi <laughs> parce que euh, voilà parce que euh, d'habitude. falu ñu top modèle. falu ñu poète d'habitude nga baal ma les beaux parleurs. <laughs> les beaux parleurs mais gis nañu fi ñu dàq sañ see. top modèle yi gis nañu fi ñoo xam ne ñoo gën a dégg tubaab Molière mais lan la ñu defar réew mi. nañ waxante dëgg nag les beaux parleurs Fatou d'habitude ah. vraiment li ñu wax lu duñ ko def. donc ñun. qu'il ait l'accent séeréer ou joola na liggéey réew mi gëmuñu loolu on il sera jugé qu'à travers les actes yu ñu ko aussi il faut que ñu bàyyi caaxaan quoi di di dénigrer nit à complexe la loolu mais quoi c'est un complexe tey Bassirou Diomaye man j'ai bien aimé sa rencontre avec le président Macky Sall ak yére mu sol mais mais mais beaucoup n'ont pas peut-être euh, mis les projecteurs sur ça mais man dama jàpp ne li mu solo mais c'est un sénégalais solu sénégalais la indi mhm. culture sénégalaise la dugal ca palais ba pourtant mënoon na xoju karavaatu mettil mhm. mais indi na Ousmane Sonko moom àndal on a vu que ñun préférence nationale. parce que suñu tailleur yi. dañuy defar yu rafet. bu waxoon tailleur bi ko ñawal. waaw suba ñëpp dañuy defar yu rafet donc donc ñun. ñun vraiment ñun loolu la ñuy xaar. cher cher waaw dama ne non xam nga man moom mais xam nga man man man faluñu ma si dara. mais mais dama jàpp ne. c'est c'est c'est c'est extrêmement c'est extrêmement important c'est extrêmement important li ngay wax cher dañ si. ciy adhéré bu baax a baax euh, tu sais euh, dañu am ñun suñu identité culturelle. Hmm. Senghor le disait que la culture est au début bu ñu demee ba dissoudre ko ba noyé suñu bos. Hmm. waaw kon ñun lan la représenter. rendez am lu ñu yóbbu ñun dafa am lu ko fay yóbbu. te léegi fierté boobu dafa dellu hmm. nit ñi insisté wuñu bu baax ci résultat yi ak lan la message bii lu mu tekki nit ñi dañu wax seen fierté. gis nga mm-hmm. famille boo dugg fii su ñun soit dem nga jàngi Europe wala États-Unis nga jóge foofu nga nekkoon fa ci projet nga nekkoon ci diaspora bi nga ñàppe sa life nga ñibbi si fii nii toog dafa am lu ñu gëm wala am nga sa doom sa jarbaat sa rakk mu dem foofu noonu mu dem di jàng foofu noonu ak nit ñi di leen dóor di génn major di génn premier et cetera. donc yow mënoo comprendre dëkk yooyu te nga xamee ne que dem nañ foofu ëpp ñu leen xel ëpp ñu ñu xel physiquement ñu gën leen dëgër. Mm-hmm. intelligence bi macha allah ñu liggéey ñibbi si fii nii nga bëgg ne ñooñ ñooy ñëw di la noot si yow te mm-hmm. ressource ñu ne la waa léegi sa gaz bi kat finalement jaay ñu gaz bi yëpp ñun loolu la ñu soxla yow amatoo ko moomatoo ko moomatoo si dara ñu ne la fay nañ la temps mm-hmm. jëlal Indorama nga ni ko yow jaay nañu euh, sa euh, engrais bi yëpp dem na yoonam léegi finalement phosphate bi dem na léegi yow da ngay toog di xule mais le nom bi ñuy wax le résultat qu'il faut liir aujourd'hui en disant plébiscite la c'est ce que ça veut dire les Sénégalais sont devenus des nationalistes sont devenus des souverainistes bu ñuy dem bay wax étranger léegi dañ fi war a am sax ay carte de séjour ak xaw ma parce que dañu koy exiger feneen le parallélisme c'est la réciprocité et mm. Mm. mais président Macky Sall jéemoon ah, na ko fii bu mais mais mais c'était une décision bu fekkee ne woon exemple la on verra dans cinq ndax dañ koy continuer di ko citer <laughs> entre li mu jéem ak ak li mu bëgg moom foog naa ay bagaasam fu Sénégalais suur nañ ko quoi xam nga dañ si bañ a rek mais élection bi mën nga ko jël analyser ko ci lu ne ne Sénégalais yi doy na nañu ci emprisonnement. Hmm. loolu rek doy na pour nga dem voter ak gaz lacrymogène. Sénégal doy na ci naan gaz <laughs> lacrymogène. maa ngi dem seeti sama benn papa ma koy nuyu bu baax a baax. këram mu ngi dëkkoon kër garaaw <laughs> Brosse mais mu nekk di ma wax mu ne ma gaz bi ñoom dañu ci naan. ba doyal ba doyal. waay waay moi j'ai vu des femmes wax ne lacrymogène